الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فك جلدي ما نجي دنك سوم باب راغال يالا دي لنكو دنك تاي ني بوك تاخاو او خوت ولا اب phenomenon boo xam ne bokk na ci xewet yu ñaaw yi nga xam ne tasaaroo na ci biir mbooloo mi ci biir société bi xewet woowu wala phénomène boobu nga xam ne ci sababam tax na ak noonoo ak i mbañeel tasaaroo ci biir jullit mi xewet woowu nga xam ne day génne ki ko xewal ci boppam ci kuréelu ñi gëm yàlla ñu baax ñi waaye dugal ko ci kurelu kàccoor yi ñu dëng phénomène boobu wala xewet woowu nga xam ne ñu bari wayefal nañ ko ba ñu bari sax dem ba tàmm ko ci mag ñi ak lenn ci ndaw ñi xewet woowu mooy xewetu wax lu ñaaw ak làmmiñ ñaaw ak di ŋàññi ay nit di yàq ay dar xewet woowu nga xam ne tasaaroo na lool ni sawara di tasaro ci mbopp ñen ñi sax dem ba jappé ko wutukaayu alal jappé ko wutukaayu siiw ku bëgg a wala nga bëgg am alal ngay wax wax ju ñaaw di kaste, ay nit di xaste di ca jaare sax bay egg ci ay pal ñu di leen ci fal ci ay place yoo xam nit ñu yiw ñoo ca waroon a ñenn ñi jàppe ko ngànnaay bu ñuy santaase ku ñu bëgg ci yow dara walla ku ñu mere jël seenu làmmiñ jëme ko ci yow la ci gën a téere yi mooy ŋàññi yooyu ak wax yu ñaaw yooyu yemalewuñ ko rekk ci seen mbindeef yi ñu tollool ay tolluwaay waaye dañuy jàll sax ba ci yonent yàlla yi di leen jëme ci ñoom wax yu ñaaw yooyu yëmuñ sax jàll ba ci suñu boroom tabaraka wa ci moppam sax di wax ci moom wax joo xam ne ju yellul la wax joo xam ne ju ñaaw loolu ñu ngi koy seede ñu ngi koy gis ci suñu biir société bi loolu di musiba mu rëy rëy rëy ñi nga xam ne ñooy yor melokaan yu mel noonu boyal seenu làmmiñ ci xaste ak ŋàññ ak rëbb ak as jam nit ciw askanam ñooñu maa ngi leen di wax ne xanaa du ngeen ragal yàlla bu fekkente ne jullit gi ngeen di tuddoo lu dëggu ci yéen xanaa xamu leen ne li ëpp liy dugal nit safara bu ëllëgee mooy loo xam ne ci làmmiñam la ko wax loolu la yonent bi sallallahu alayhi wax làmmiñ moo ëpp lu muy dugal ay nit ci safara di leen wax ne yéen ñi nga xam ne ne ngeen ay jullit ngeen nu ngeen def ak teggin yi nga xam ne moom la alquranul karim di jàngale ci làmmiñ wu fegu ci wax wax ju rafet melokaan woowu nga xam ne moom la yonente bi sallallahu alayhi wa moo ki saxaabaam ridwanullahi alayhi bu ñu seetloo alquranul karim suñu boroom tabaraka wa buy wax ci yenn mbir yi sax te moom moo moom jaam ñépp nu ko soob mën na koo waxet waaye yu ca bari du jaar ca digg ba da koy dàkkental rek buy wax ci diggante ànd bi am diggante góor ak jigéen ci wàllu sëy loola daf koy tudde rek jonjoo wala tubaasiruhunna wa antum aakifuuna fil masajid bu leen jonjoog ñoom bu fekkee da ngeen a leertikaaf ci jàkka yi dellu wax ne nit ñi danañ la laaj baax yi jigéen ñiy gis mooy lan na nga leen wax ne lor la néewul sax sobe la waaye defe na rek lor la qul huwa azan dal de loola su amee na ngeen sori jigéen ña nga xam ne ñoo ca toll ci di ko gis bu leen leen jege gis nga baatub jege rek la tudd bu leen leen jege ba ba ñuy laab bu ñu laabee na ngeen leen dikkal fa leen suñu borom tabaraka wa taala digal gis nga yépp taxul mu tudd la nga xam ne moo war a am ca diggante boobu mu ne yàlla kat bëgg na ñuy tuub bëgg na ñuy laab laab ngir teg wax ju rafet suñu borom tabaraka wa taala mi ngi wax ne am na baat yoo xam ne sax mën naa joxe li nga bëgg a wax waaye comme dees koo mën a déggee neneen na ko moytu mu ne yaa ayyuha allazina amanu la taqulu raaina baatu raaina mooy néggandikunu waaye dafa am leneen lu muy tekki ci waxiinu yahud yi loo xam ne du wax ju rafet moo tax borom bi ne kon bàyyi leen baat boobu di wax ne unzurna la taqulu raaina wa qulu unzurna soo wax ab baat boo xam ne li nga ci jublu sax mën na koo tegtale waaye nag mën naa tegtale itam leneen ku ko bëgg a ñaawal mën na koo jël bàyyi ko fa jël beneen baat boo xam ne kenn du ko mën a jëmee ci leneen yooyu yëpp kon ay teggin la yoo xam ne alquran daf koy jàng ñooñu dañ leen di wax na yéen bu fekkee ay jullit ngeen nu ngeen def ak ndigali suñu borom tabaraka wa taala yim digle ci ne wax melokaan yii la war a àndal wax dafa war a rafet wax war a dafa nekk maaruuf mooy loo xam ne ku ko dégg ne ah loolu de jaadu na dafa war a nekk lu jub mooy lu dëggu dafa war a nekk lu tedd loo xam ne du soke kenn du blessé kenn dafa war a nekk lu jàppandi loo xam ne kenn du ca déggee ak ragal waaye dafa war a nekk sax lu nooy doonte sax na ki ngay waxal bokk na ci nooni yàlla yi gën a tar ak noon du tee booy wax ak moom rek na nooy motax suñu borom tabaraka taala bi mu yabale Moussa ak Haroun alayhi assalam ci firawna te firawna ku ne xam na ak ndëngteem jéggi na dayo lool kenn yëggu ci waaye dana leen faqula lahu xawlan layyinan su ngeen demee su ngeen di wax ak moom na ngeen wax ak moom wax ju nooy anas ibnu malik radiyallahu anhu mi nga xam ne moo nekkoon ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mi ñuy wax ci jikko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak ni mu fege woon aw làmmiñam du ci génn dara loo xam ne luy blessé nit la wala lu koy ayibal la mu ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam nekkul woon am ŋàññekat nekkul woon ab xastekat nekkul woon kuy wax wax ju ñaaw wala muy rëbb kenn nee na su masaa yedd nit ba yedd ko ne da dana wa diw moom lan moo tax jéem bi taq suuf loolu la daan yedd nit lam ci jublu rek mooy am na melokaan bu mu yor boo xam ne jagut loolu lay wax diw de diw de moom lan moo tax jéem bi taq suuf maa lahu tariba jabinu loolu la yonent bi sallallahu alayhi wasallam daan wax bu ma saa yedd nit ba di ko yedd bëgg koo wan ne am na lu nekk ci yow ci loo xam ne rafetul loolu rek lay wax yow de sa jëbi taq na suuf la koy wax Aysa radiyallahu anha mi ngi li ne am na ay yahood yu ñëwoon ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam biñ dugisee ñu ne ko assalaamu aleykum assaamu boo ko déggee boo seetlu lu baax da ngay defee ne assalaamu lañ wax fek asam li tekki moy de dañ ne yonent bi yalla na de dee loolu la ko yahud wax mel la dañ koy nuyu radiyallahu anha xam liñ wax daal leen yéen itam assaamu wal la'natu alaykum de ak rabbum yalla yalla nek ci yet yonent bi sallallahu alayhi wasallam ko ya aisha defal yalla dafa bëgg ak tay ci mbir yep nga di ci yombal di ci def ak tey radiyallahu anhu anha ne ko xana déggoo wax mu ne ko dégg naa ko kay waaye delloo naa leen ko ndax dama leen wa aleykum rek ak yéen te man sama ñaan yàlla da koy nangu te ñoom seenu ñaan yàlla du ko nangu comme dee lañ ma ñaanal ma delloo leen ñoom seenu ñaan yàlla du ko nangu te man bu ma leen ko delloo yàlla da koy nangu kon loolu doy na sëkk yonente bi sallallahu alayhi dégg na benn waay muy móolu ak séq guy sab mu koy móolu booxun ma séq gi rek moo mën a sab yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne bu molo ti cheq mom day wote julli day ye nit ñi ci julli fa innahu yadu ila sala gis nga ba ci mala sax yonente bi sallallahu alayhi wasallam beggul ku ko ŋàññi bëggul ku wax ci mom wax ju ñaaw mbokk julli di ko xamne ne dafa min wax wax ju ñaaw ci miñam loolu lay bakkoo loolu la def ngannaayam lay xuppe nit ñi yor la miñu ñaaw lool xana dafa deggul yonente bi sallallahu alayhi wasallam wax ne siba ci istibaabul muslimi fusuuq nee na ŋàññi ab jullit di ko xas di wax lu ñaaw ci moom loolu ak ndëngte la ak mbon la su eggee nag ba ci xeex moom nag nee na loolu moom kéefër la yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne al ku gëm yàlla daal du nekk xastekat du nekk rëbbekat du nekk boroom làmmiñ wu ñaaw waxaat moom yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne ŋàññi ab jullit ak di ko rëbb daanaka moo ko rey ko rek ñooyam ndax léeg-léeg nga teg nit kàddu yoo xam ne daanaka day mel ne rey nga ko duutu mën a jaar fenn mbooloo mu mu duggati day yëg ak doye di day yëg kersa ngir kàddu yooyu ñu teg ci moom abu darda radiyallahu anhu àndoon naag ay àndanoom di dox romb benn jigéen boo xam ne bu ñaaw làmmiñ la muy lor ay dëkkandoom ci làmmiñam ma ngay xas kee ma ngay rëbb kee ma ngay ŋàññi kee ku nekk daal ma nga am ci yow aw yoon Abu Darda de kii de muumaa gënoon ci moom maanaam mu muuma woon bañ a mën a wax moo gënoon ci moom wax jii muy wax law kaanat haasihi xarsa kaana xayran laha ne kii de bu muuma woon moo gën ci moom ndax gannaaw mën naa wax waaye du wax lu baax kooku mu tëlee woon a wax moo gën ci moom ndax aw làmmiñ mooy dugal boroom ci ay alkande moo koy xañ ak pay xañ ko ab yoon daf koy tabal safara bu ëllëgee daf koy xañ aljanna ndax day tax mboolem lu mu doon def ci lu baax loola du ko jariñoo dañ koy faye nit ñi nga xam ne ñoom la doon wax ci ñoom lu ñaaw ki nga xam day ak rëbb ak xaste kooku julli yi muy julli ak koor yi muy koor ak sarax yi muy def ak mbooleem jaamu yàlla yi du ko ndax loolu muy def mooy sànq ay jëfam topp yàlla yi mu doon def day sànku day nekk muflis mooy ku fayit koo xam ne lam amon ci lu baax lépp faye nañ ko jim doon ŋàññi bu matalul ñu jël ñaawtee fi ñooñee mu doon ŋàññi jox ko bu ñu fàttali ko xisab jigéen ji nga xam ne daf daan woor bëccëg yi di naafi la di sarxe faqir yeeg miskin yi di def mboolem jëf yu baax yi waaye nag amoon na ayib joo xam ne mooy da daan lor ay doom ci làmmiñam mboolem ay dëkkandoom dañ ko daan moytu bañ ko nett la yonente bi sallallahu mu ne laa xayra fiiha kooku day dara ci lu baax nekkul ci moom ci waa safara la bokk ñu ne ko ah julleem yéeg kooram yéeg naafilaam yeeg yépp mu ne laa xayra fiiha kooku baaxut ci waa safara la bokk yonente bi sallallahu alayhi wasallam laajoon nañ ko kan ci jullit ñi moo gën mu ne daal koo xam ne jullit ñi mucc nañu ci aw làmmiñam mucc ci loxo ñu ci abi saidin al xudri radiallahu anhu mu ne doom aadama bi bu xëyee cër yépp dañuy musulu ci làmmiñ ne ko yow làmmiñ ragalal yàlla ci nun nun de yow ci yow lañ dépendre boo jubee nu jub boo dëngee ñu dëng ab tii ne bul ñaan yàlla nit ñi luñ mën a def ci ndëggate bu mu tax nga ne leen yàlla bu leen yàlla yërëm loolu bu ko wax kenn bul ne kenn merom yalla yalla nek ci sa kaw nit bu dëngee rek ñaanal ko ak njub ñaanal ko ko jubbantiku gannaaw faatoogu te suñu borom man na lepp ñaanal ko mu ko ku gëm yalla dëgg daal du am ngagne kat du nek ab kat du nek ko xam ci askan nit ñi ak seeni dar ci la nek ak seeni melokaan ak la leen yalla bindé loolu lay gëstu fu mu toll mi ngi gëstu sikki nit ñi bu ko xamul mu sasal leen ab jurit warna sam aw ci wax yu mel noonu ba ay jëfam yu baax ak i tuyaa baab du sànk bu ëllëgee yow malxiyaam moo tax suñ borom ne waxal sama jaam ñi ne leen suñuy wax nañ seet la gën a rafet ñu wax ko wa qul li ibaadi yaqulu allati hiya ahsan ndax kat inna sheytaana yansaxu baynahum seytaane ci wax yi ñuy wax ci lay profité jaxase ay nit fekkee li nga wax leerut wala rafetut mënees da koo déggee ne leen ci lay def ci xole ñi ngay waxal la yéen de kii de yéen lay léebu kii de yéen la ko tax di wax su ko defee ñooño itam commencé ëmbal kooka ak noonu su ko defee ak mbañante tàmbulee juddu foofu loolu seytaane da ciy profité moo tax koy wax da ngay wax wax ju set ju leer li ngay wax su fekkee daa am ñu ko moom nga jëmale ko ca ña ko moom bañ xam ne ñi ko moomul ñoom seen yoon nekku ci mbokk yi li xew léegi ci plateau télévision yeeg ci réseaux sociaux yeeg yoo xam ne ay nit métier kaste ak ngagne dem bañ leen ci di fal ay place dem ñu nek ci nit ñu siiw mel la dañoo nek ay kilifa te dara waralu ko lu may làmmiñ ñaaw ak wax ju ñaaw dong mom lañuy ñuy wo loolu bari legi ku ñu bëgg santage jël seen làmmiñ wu ñaaw def loolu def loolu ab liggey loolu musiba la nit ñi dem ba di leen ko nangul ba di leen fonk sax bu mu ndaje amé ñu di leen jox ay te amul dar ben daraja bu leen tek fofa lu may wax ju ñaaw dong su demee nag ba wax ju ñaaw ak xaste mooy yëkkati nit ba di ko jox cër xam ngeen bu ñu demee bay fal nit député te dara wëralu ko lu may xaste saaga rek a tax ñu fal ko loolu loolu ci réew mu muy amee loolu moom réew ñi ngi ci musiba bu rëy a rëy nasalullaha taala an yaxfasa alayna alsinatana wa an yaxfasa alayna aradana wa an yaxfasa alayna buyutana wa an yaxfira lana sunubana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain